taala wa barakaatu ni ngeen ko gisee nii jëmm ju tedd ji suñu ginnaaw di Serigne Cheikh Jëmb Fall di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te ma def moom mi xalif général de Baye Fall xam nga ni ñu nekk si jamonoy weeru koor weeru koor rek mbokki bàyyi Fall waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall lu am solo li ñuy def di toggi ndogu taarixu toggi ndogu yooyu yëpp dinañ si ñëw incha allah kon teewu fii si euh, euh, fii nga xam mooy kër maam Cheikh Ibrahima Fall si Mbàkke ngir wane liggéey bu màgg bi nga xamante ne waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy def àddi seeg Serigne Ndaw ak ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Samb sëñ Mamour kon liggéey baa ngi kon jërëjëf sëñ Alioune ko waxee rek kilifa yaa ngi si kon ñu xel xaar Serigne ñu ñëw ak maam Serap kon jamono ji nga xamante ni rek euh, moom la ñuy euh, sàkku ndigal si Serigne Cheikh Jëmb Fall si la waa kër sëñ Modou Aminta Fall si njiital sëñ Moustapha Fall Mbar di ñëw jébbal si ñoom seen liggéey si ndogu waaw xam nga lii lépp day wane rek pas-pas bi nga xam ne Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ci liggéeyal Serigne Touba ndax lii xamante ne bii am na ku fi ñëw xool rek da xam ne. sëriñ bi moom Cheikh Ibra Fall joxoon na ko lépp ndax wax dëgg fii li fi teew lépp ci ay loo xamante ne bii du mën a dem ci ndog yi nag wax dëgg am na solo lool say gaa yi xanaa rek di di dollee ñaan bu baax a baax rek Cheikh Ibrahima Fall liggéey bi nga xam ne dana ko liggéeyal sëriñ Tuubaa lépp lu ci bëgg lépp lu loo xam ne taalibe yi bëgg nañ ko ci rek lépp mu sotti waaye moom Cheikh Ibrahima Fall amiin amiin xam naa kon ñu jébbale liggéey bi rek wane li nga xamante ni mooy sëñ bi xool bi nga xamante ni mu ngi koy xool liggéey bi bu am solo bi nga xamante ne waa kër moo Modou Aminta Fall indi nañ ko fii da da da kon euh, lii ngeen di gis nii fii la ci kër Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général de Baye Fall euh, muy liggéey bu am solo bi nga xamante ne bi maam Cheikh Ibrahima Fall moo koy defal ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul muy ndog yi nga xamante ne bi moom la ko Cheikh Ibrahima moom la Cheikh Ibrahima Fall doon toggal Serigne Touba tey nag kii ko fi nekkal muy Serigne Cheikh Jëmb Fall itam ba tey mu jiite liggéey boobu di ko wéyale fii ñu taxaw mooy waañ bi nga xam ne soxna yi fi la ñu nekk di togg ndog yi Eh, ngeen gis nag déguisement yu bëri yoo xamante ne bii yu wuute lañ muy buntu kër eh, njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ki nga xamante ne bii ñoo fi nekk kenn ku ci nekk tey say sa mbooloo teew na fi ak cheikh yi nga xamante ne bii ñoo toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouride yëpp tey ñu ñëw fii ci kër xalifa bi Serigne Cheikh Jëmb Fall di togge ndog yi fii ci biir kër gi ci teewaayu Serigne bi gis ngeen léegi eh, image bi nga xam ne doon nañ ko jël léegi ci ñi nga xam ne ñoo doon jëbbale si liggéey bi te muy njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ak cheikh yi nga xamante ni dañu aju woon ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall muy nag muy gëléem muy ganaar muy xar lépp rek indi nañ ko ci biir fii nga xam mooy que Serigne Cheikh Jëmbu Fall jébbal ko Serigne bi ngir ànd ak ñoom ci liggéeyu ndog yi. loolu nag ci la ñu ñëwee fii ci waañ wi ngir fas yéene ànd ak soxna yuy togg won leen xeeti toggin wi won leen itam li nga xamante ne bi wax nañ ko léegi ci biir ubbi bi mooy Cheikh Ibrahima Fall li gën lay jox Serigne Touba kon ñu ànd ak soxna yi ñu xool. Euh, liggéey bi ànd koog dayre yi fi nekk yëpp nag muy daayira soppey Cheikh Ibra yi muy buntu kër dooñu maam Cheikh Ibrahima Fall yi muy seexi Serigne Cheikh Ibrahima Fall yi ñëpp kenn ku ci nekk sa mbooloo ñëw na tey fii kës kësiñ Cheikh Jëmb Fall ngir fas yéene ànd ak ñun liggéey bi kon nu leen liggéey bi ni mu Yeah. ñi ci soxna yi di liggéey bu am solo bi nga am ñu ngi koy def ci ndog yi soxna si yow noo tudd man soxna maam Fatou Bala tudd ci ban daayira nga bokk daayira sëñ Fall mu daminta sëñ mu daminta waaw ñu ngi gis boobu ba léegi yéen a ngi ci waañ bi ne ci rosi bi waaw mel na liggéey bi moom tuwarkal liggéey bi kay moom pasteur rek lañ si àndal mm-hmm. waaw ak ndigal mm-hmm. di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb mu yàgg fi mm-hmm. di ñaanal sëñ mu di ñaanal sëñ Mbarakam ñu yàgg fi ñu nit ñu yàgg fi ànd ak ñoom di liggéey waaw waaw mais togg bi moom ban façon togg lay togg gi de ay ginaar la ak pombiteer soble am na mis wi ay xar defar nañ yëpp ba pare ah. waaw loolu xeet togg boobu rek lay doon waaw xeet togg googu rek lay doon kon daan ba ne yëpp daanaka mën nañ ne ay ganaar la waa ak ay ah, bu dee comme kumte nii ñu dooli si ay xar ak ah. kon pompiteer yi ñuy saaf nii si la jëm <laughs> si la jëm waaw fu nga ne daan ngi saaf pompiteer bi defar nañu xar yi ba pare ak ginaar yi ña nga est-ce que euh, daayira yéen a ñi ci nekk xanaa ñoom tamit dañ koy ñëw ngeen barkeel ci liggéey ñëpp si lañ bokk bu la baaxee yi ngay gis ah, ñëpp nga xam bokk ñi tam. ñooñu ñëpp ay daayira lañ dañoo ñëw di liggéey si ay Baay Faal lañ. Ah, waaw soo paree nga jaala sa cinal sëñ Fallou Seex ge waaw moom tam njiit laa nga ne. li ñu xaar si liggéey bi xanaa lépp lu ñu yéene rek ñu fas ko si wér fekke tal yàgg liggéeyal sëñ bi rek. ak nii wàññi tànk yéen ba pare waaw waaw da ngeen boole pëseef beeg yëpp yëgu leen tàngaay. ñun yëguñu ko ñun ay Baay Faal la ñu yëguñu ko ndigal rek la ñuy wéyee. si ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay. waaw mu mel ne yéen ngi ci waañ wi ci ndog yi te muy liggéey bu am solo ñu gis pëseef beeg yëpp nag ngeen jàmbar lool nag ndax tàngoor wi metti na lool te teewul yéen yëgu leen ko sax. waaw fas liggéey Seex Rafaal rek si kàttanu yàlla Seex ñu ñaan ci yàlla yeggaleel ñu suñu liggéey ñu liggéey ko ci liñ ko bëggee ba mu yegg ak jàmm ci ba kàttanu yàlla nangul ñu ko yaat koo teewe loolu daal ci la nekk fi nekk ni parce que daal ci liggéey bi rek la nekk parce que mel soxna suñu doon waxtaanal léegi mi ngi wax naan sax yéen da ngeen togg ba noppi te nuun ko sax ñam xorom sax bu waaw xorom sax da duñ ko ñam bu mbaa nga xam ne ku ci ñam xorom boo fekkee da ngaa ñam xorom it doo paree da nga koy tefli da at mu ne nag nu togg ko moom egg waaye du xorom rek da ñam rek tefli waaw ndax ndigal rek la ñu wee ndax ñun waa kër seex Rafal bu ñu toggee ñam danoo yëg sëñ Tuubaa des te ñun du ne sëñ Tuubaa des loolu la nangoon ci sëñ Modou Fall mu baax na waaw. bu mel ne itam euh, yéen fu ngeen de kon xéewal gi ngeen di xéewloo yéen fu ngeen koy xanaa du bokk ci lu dem. déedéet loolu tam du ci bokk léegi xéewal googu noonu sëñ Cheikh Jëmb Fall moo koy joxe mooy togg xéewal indi ak sëñ Fall mu daan te fan Fall Cheikh bu ko defee bu ñëwee ñu boole ko moom la ñuy barkeeloo waaw loolu la. benn pomme de terre boo tuur. boo tuuree pomiteer da ngay fay soo daggee ginaar da ngay fay soo xuloo dañ alamaan foog ree rek liggéey rek ba ñu pare booloo baax rek amul xuloo amul xeex amul tuur loo jàmm rek ak salaam bokk na ak baay xéewal Cheikh fal waaw mu mel ne liggéey bi góor ñeeg jigéen ñi ñëpp ngi fi te lépp sàkku ngërëm rek la sëñ bi. tur bi naka la. Cheikh Mbacke Gueye. ci ban daayira nga bokk yow. daara si sax Assou Ndiaye si sax Mbacke Fall mu am mu Mourou Moustapha Fall mbaa yàlla. tubaarkàlla foofu liggéey bi toll fi ne. liggéeyam nag ñu ngi ci kaw nag doo ko tàmbali rek nag. waaw fas yéene na di ñaan maam Serap Fall. maanaam ci dooleem ci kankat kattanam. mi ngi yebal fii. nga xam ne maanaam suñu coobare sax. daf ñoo bëgg a rek bëgg a dimbali suñu wéyjur moo tax ma yebal ñu fii. ne moom ndam gënu koo daax. doon doomu aadama ñëw ñu jàpp liggéey Serap Fall dam ci yow maanaam ñu koy santee si Cheikh Mbacke Fall nag bu si Cheikh Assou Ndiaye maanaam man daaw laa ci moom mais mën naa ne man li de des sama jëmm ji ak li may yëg mosuma ko yëg si doomu aadama waaw léegi euh, tiim ngeen mbana yéen waaw seen mbana gi lu mu doon mbana gi da waaw maanaam kii de tufe la moom ah. waaw xam nga war ba ngoon jot lekk ceeb neexul bu njëkk ba ceeb la woon sax mais dégg naa ci maanaam ci waxtaanu mag ñi ci seex Mbacke faal mii moo ne sëñ bi fi nekkoon xalifa bi fi njëkkoon nekk maanaam war ba ngoon di lekk ceeb neexul maa soyoon ma def ay tufe waaw kon fi ne tufe ngeen tiim. waaw tufe leen tiim moom. kon parce borom parce ngeen de. rek Wow. di kon euh, mbokk yi ba tey gis ngeen ñu ngi fii ci kër sëriñ bi ci ndog yi te nañu toog ak ab Abdou Ndiaye mi nga xamante ne bi moo yor waa ñu yor magasin bi yëpp bagage yi fii dugg si yëpp moom ci loxoom lañ ko teg sëñ bi ñu lay nuyu. Ah, liggéey bi moom ni mu demee mooy sëñ bi joxe na ndigalal suñu xëyee lii wàllu ganaar yeeg pombiteer beeg soble si ak diw yooyu yëpp nu sellal ko joxe ko ci ak dal jox ko soxna yi taxawu leen ñu togg ko toggin wi war sellal toggin wi ba fi mu koy yóbbu bu yeggee ñu xam ne fa mu jógee fay lii fa mu jógee euh, sellal nañ ko. kon mu mel ne ñëw nañ ci magasin bi gis fii yow yaa ko jiite jiite liggéey bi fii tam ci biti muy ci waañ wi waaye magasin bi gis nañ fi lu mel ne ay xeetu soble ay xeeti pomme terre ay ay biron yi diw. mu mel ne kon lépp lu ñëw ci matériel boobu fii lay nekk ci magasin bi mais soo xëyee nan nga koy tasaaree mbokki taalibe yi nga xam ñoo koy togg cin lu nekk la ca war a dem yow loolu ci sa loxo la nekk. waaw loolu maanaam. tey jii nga xam ne ji tàmbali nañ liggéey bi li ma leen jox démb laa ko taxawaloon natt diw gi teg natt soble si teg teg pombiteer bi eh, kaan yeeg poobar yi war a demit ñu natt ko teg bin xëy see ñu daal leen koy jox ci suba gi jamono yi nga xam ne waxtu ndékki la ci la leen lañ leen koy jox su ko fee ñoom it nag ñu ne ci di ko liggéey raxas ko ba mu set def ko ni ko def euh, xar yi nga xamni ni lañ koy bolé lit dañ ko daan yobbu ci pour yi ya, waye dañu xol liggéey bobu dal gis nañ benen liggéey bu ko gëna sel ñu wëlbati ko ca booba daaw lañ ko tambali won ñoko defal suñu bop fi léegi defar bu mucc lay doon ndax bu bu démé ci pour bi ba ñew na nga bëgg mu mel du ni mel ndax léeg nga gis mu ñor lélé nga gis lu dul ñor té lool kenn ko yott ci kilifa mu waral nag sëñ bi baaxe nu nu am xelum daal di ko defal suñu bopp fii defal boo xam ne bii dana ñor xomm te du am benn sikk waa mbana yi euh, defe naa dem na ci fukki mbana bu ma juumut ak juróom benn ci yi nga xam ne moo nekk fii ci biir waañ waañu mag bi waaye bokkut ak nag super bi Eh, déedéet bokkul. super bi mooy super bi maam Cheikh daan togg ay ginaar ci jamono eh, ñi fi ñi fi jaaraatit daan ko toggu ay ginaar lay doon moom mii di Cheikh Ibra ndax moom moo desiwaat soppi ab liggéeyanam ndax ci jamonoy ceeb ak ndawal lañ daan togg waaye moom ci jamono ji nga xam ne ci la toogee bi mu toogee te ñu xam ne moom ñii kat borom yëf yi moo delsiwaat ci la ko soppee def ko ndawal. sëñ Mamour mu mel nii fi mu ne nii daanaka waxtu wi ñu war a kon jébbali ji liggéey bi mu ngi jege si ndaxte fi mu ne nii laataa tàkkusaan xam naa ni mbooloo mi di dañ daje fii ñu toog ak nag sëñ Omar yaa di kenn si jëwri ñu liggéey bi fii si kër Serigne Cheikh Jëmb Fall mu mel ni kon liggéey bi boobu ba léegi gis ngeen ni li si gën a yéeme sëñ Omar mooy eh, kilifa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi njabootam gi daanaka ñoom ñëpp rek boobu ba léegi ñu ngi fiy ñëw di di di jébbal si seen liggéey. lépp rek kon euh, ndogu yi nii lay demee. waaw kon nag euh, ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di jaaraamaal Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di ñaanal Cheikh Sidi Mokhtar sama borom yàggal ko fi te defal ko wér di ñaanal Serigne Cheikh Fall jëm sama borom defal ko fan wu gudd tànd ak wér njabootu Sëñ Tuubaa beeg njabootu Cheikh Fall gi ak dong yëpp liggéey bi nga xam ne nag yéen ñu cee laaj liggéey boo xamee ne liggéey la boo xamee ne liggéey bu yàgg ci sira la liggéey la boo xamee ne buñ tuddee ndogu rek xen buñ tuddee weeru koor rek xelu doomu aadama yi dem ci ndogu Baay Faal yi ndogu Baay Faal yi nag doon na loo xamee ne lu fi yàgg la loo xamee ne Cheikh Ibra moo ko daan defal ku tedd ki mi nga xamee ne mooy Sëñ Tuubaa loolee nag mooy xaj na bu nu waxtaanee ca loolu ba noppi door a wax nag kilifa yi seen taxawaay ci liggéey bi naka lay demee seen naa leen taxawaay boobu waaw kon euh, euh, ndax mën nañoo dikkaat si cosaan li cosaan li kañ la ñu tàmbali euh, liggéey bi nga xamante ni mooy jóge kër Cheikh Ibra di dem kër Serigne Touba Khadim Rasoul. liggéey bi nag dey ca lañ ñu xam te sëñ bi wax na ko nu xam ko mooy liggéey bi moom bi sëñ Touba gërëmee Cheikh Ibra fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm mun ne ko Ibrahima mun ne ko Faal mu ne ko Mbàkke mun ne ko ab làmp day leeral mu yebal ko Ndar bi mu demee Ndar mu def fa diir jóge Ndar sëñ Touba ko mu ñëw fekk si ko mu yebalaat ko ndar jàppaat yoon googu sëñ Tuubaa fekk ko ndar ñu ànd dem ci géej ga kon diggante googee yëpp Cheikh Ibra Fall toggut ndogu lam daan def mooy magi taalibe yi daan fekk Cheikh Ibra Fall ca ndar ak la wër ndar ñooy liggéey bu ngoon jotee ñu dajale seen ñaq ñoo jox ko Cheikh Ibra Cheikh Ibra xool fu sëñ bi nekk mu yónnee ko liggéey ba kon foofu toggaguñu ndogu bi Cheikh Ibra toj ndànd toj Kébémer ba ñëgg cees boobu toggaguñu ndogu ba ñu bi mu ñëwee Thiès nag 1904 fekk si sëñ Babacar Lo mooy taalibeem bu mag ba bi Ibra boobu nag ay añ lañ tàmbalee togg di ko teg ci train bi ñuy wax mooy régulier di ko andi ci njaareem boobu sëñ Tuubaa moom ñëw na njaareem Cheikh Ibra ngi ndax Cheikh Ibra ngi Thiès boobu ay ay añ lañ daan togg di ko andi saa yu ñu xëyee dañuy togg añ teg ci train bi ñu naan régulier mu ñëw fekk ci Cheikh Ibra Fall mu ñëw fekk ci sëñ Tuubaa fii ci kon dañ daan togg ay añ bi sëñ nag joxee Cheikh Ibra Fall ndigal ngir mu ñëw fekk si ko njaareem diir mu door ko wóolu ba mu ñëw. mu andak bay Baye sam waki waxi bay mo dugay maro sëñ Yaaram Mbay sëñ rokaya roqya mu ne ko dom bo gisee buma day ak dem ci ku tedd ki di ànd ak yéen kat sabab bi moy damay def ku tedd ki bu day wax suuf ben ba juróom-ñaar asman ben ba juróom-ñaar day ak lepp lu sa borom bind tan yor bakkan moy ay mala dañ koy sabal lolay tax munuma bolé yëng reug reug googee ak waxi Bamba adom ah, kon bu day wax de len ko telu Suma day wax di waxat nak damay bañ ko yok sama wax mbaa ngeen wañu ko adom ah, ne ngeen deglu lolu kon sabab bobu lolu amna ci sëñ tuba bi mu woolu sum Ibrahima munako Ibrahima munako fa munako ne munako damay sént aw ay gan wax ko damay sentu gan de damay sént ay gan te yoyé gan dama bëgg nga togal len rer lolu dal ko sëñ tuba junj mu ñaanal ko ñu ba jiggi wi wax mag ni ma dolon ne ku tedd ki lan la wax ne ko Fall ku tedd ki de li mooy nee na day sént ay gan te gan yooyu dafa bëgg nga toggal leen ay reer mu ne doom xam ngeen lu sëñ tubaay waxa mag ñu ne tekk mu ne sëñ tubaay ay ndogu la guloo ndog yi ma toog sëñ ma ku ma jox lu tolloog tànk ma defal la ci defar dootul yàqu boo faatoo ma tàbbal la àjjana di wax ndog yi may toggal sëñ bàmba bu doomu aadama umoo dem ba mënatul am dara bu demee fa ñuy toggee ndog yi saxaar si dugg si ko rek saa borom dana ubbi bunt yu xéwalam yépp kon lolu bokku na ci sababu ndog yi ñuy togg diko andi ndog yi nak nan koy toggoo ndog yi ñongi ngi won ci fukki ndab ak ñaar ci njaareem lañ ko tàmbale ci fukki ndab ak ñaar Cheikh ibrahim daan ko toggal seigne Touba ñukay andi ci kër gu mag ci njaareem diko jébal seigne Touba Cheikh Mamadou Moussa Fall ñëw yeesal lolu becc seigne Abdou Sakkour becc seigne sëñ Modou Aminta seigne Cheikh jëm ñew rek jël liggéey bobé seigne Cheikh jëm nak mën nañ ko wax ci liggéey Cheikh Rafal bi ci ndog yi li touba di wax rénovateur moy ki yeesal dama len wax sank mbir nag kuko susut doko doo yeesal ndax ñi fi jaar ñep kenn ku ci nek def nga ci lo xamé ni ba ila ajalin musamman kenn dootu ko fàtte ndax Cheikh Rafal mo waxon ni yaram bay mu ne ko faal mu ne ba keroog sama borom du wël dënd ga fu señ bamba samp mbërëm danaa sama sama mbeur fa ca dess yaram bay mu ne ko faal mu ne ko alquran ba jeef araf bu ne señ bamba bin na lu ko way araf juna jeef na lu ko tax a daal di wax ni yaram mu ne ko faal mu ne ko sama wati wala de goo ci alquran mak señ bamba lay wax li jaaxal si bi ni mu toll ni way duñ koy di xayma lu ko waral waa xam nga bi Ibra léppam day yàllay kese te xam na ni sëñ tubaa mi muy jëfal sëñ tubaa dara ump ko danay def nag liggéey bu muy jëme ci sëñ bu mag bi des na ko tënk ci kayit te bu la joxee kayit gi boo dee demit mu ne doom xaaral ma wax la li ci ne ndax boo yeggee sëñ tubaa dana la ko laaj ndax sëñ tubaa dara ump ko ndax kat bi Ibra Fall daa wax Baye Ibrahima kan Ibrahima mu ne ko Fall mu ne ko boo leen demee ba nopp maa gis na ngeen dajaloo doon benn say jox seen bopp ki mag kër ki mag sama kër jox boppam ki fi nekkal sëñ Bamba daal wax ne Ibrahima mu ne ko faal mu ne ko su amut danaa ko amal su manut danaa ko manal dana boole faranku laay toog ci kollam su toogee sama lal juróom-ñaari fan mat ma sëkk. kon kookee nga xamee ni Cheikh Rafal wax na ko daal di ne sama xalifa gii ku fi toog soo amut ma amal la soo mënut ma manal la danaa boole faranku laay sa koll boo toogee sama lal juróom-ñaari fan wax ne yaaram mbay mu ne ko faal mu ne ko liggéey gënum njàng. maanoo gënub koor joxe gënub julli liggéey bi nga xamee nag ñoo ngi koy liggéey muy liggéey koor gi nga xamee ni ca loxoy sëñ Mouride Aminta yàlla na sama borom dolli leeram ca la mujj ñëw ci loxoy Serigne Cheikh jëmb mi sëñ bi def ci liggéey boo xam ne ba ilaa ajalin musamman kenn dootu ko fàtte waaye loolu day xam ne ni Cheikh Ibra Fall démbam ju ne tayam da koy gàcceel démbam ju ne tayam jii da koy gàcceel sëñ Cheikh jëmb nag miracle la. sëriñ bi dey moo ngi sant ay rakki boppam yi nga xamee ni ñoo ngi koy togg leen ndogu ci seen kër di ko yóbbu ci kër sëñ bu mag bi. jëf jooju moom lañ koy defal moo ngi leen ci sant moo ngi leen ci gërëm moo ngi sant nag njabootu boppam ñi nga xamee ne ay rakkam lañu ak ay doomi boppam ak cheikh si mag si nga xamee ne seeni maam ak maami sëñ bi la woon doon ay jàmbaar doon ñi nga xamee ne cheikh bi lañ gëm sëñ bi wootee ñoom ñooy njëkk ñëw te balaa sëñ bi bu liggéey bi jeexee la sëñ bi la ñuy door a dellu seen kër yi ñii tëj nañ seen kër sëñ bi nee na xam na ngi leen ci sant moo ngi leen ci gërëm moo ngi leen di jaajëfal di waxaat ni kat ñi nga xamee ni yàlla ngoo ngi dogal ñoo ngi kar doomu aadama ci mbedd mi naan dañuy laaj ay ndogu sëñ Cheikh seex Cheikh jëmb laaj ju wul kenn ñuy kar ay nit di leen fitnaal mbaa di ñàkk ci ñoom kerse di leen laaj sëñ bi ñamuy laaj ñoo ngi koy andi te wóoruñu ko di ko laaj fenn fenn fudul seeni taalibi ak ñañ ko séqal ñu doon ay wólëre Cheikh Rafal Babul Mouridine daa wax bàyyi Cerno Sallub jébbu Cerno mu ne ko faal mu ne ko balay denc gone muy kapp-kappal di julleeg war te xam ne gone mënut a jaamu yàlla daa war a lagg liggéey cer na mu ne ko faal mu ne ko bàyyi faal ñett la si kartur yàlla sàmm say cër ak liggéey joxe cheikh faal baabul muridin nee na yaaram bu ndeyee ba mujjum jamono nit ñu daan jël ay wax def ko muy jëf waaye yen ñi ma yaakaar sax leen ci jëf te bàyyi wax te xam ne sama borom dafay yéen a bàyyi jëf waxoon na doom njalbeenub diine kat diine la waaye digg nguur la waaye mu jóge kéefar la ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf yéen waa télévision bi sëriñ bi nag moo ngi leen di beral ab cant Seydina Aline Badara Ndim ñoo ngi leen di sant yow mi nga xamé ni surtout Baye Cheikh Ndaw nga ñong lay sante Baye Mamour seen bëgg gépp sëriñ bi la yow alalu Cheikh Ibra nga sayyidna ali mi alalu Cheikh Ibra sëriñ bi neena xamna seenu na seen seen kilifa bo la démé ngeen jotati ko liggéey bi xamna ne bi xolam sedd na ci yéen guy na ngeen rafetu njort ta dalal seen xel ta xam ne bi kep ko xamé ni yang koy liggéeyal tawfiq dong ngeenam kon radio bi tawfiq lay dam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi jërë ngeen jëf laa ilaha illa laa faal لا إله إفال إلا الله إفال لا إله إلا الله لا إله إلا الله خمو بوب لين جنغ لين كوي وخ نجابو مام شيخ إبراهيم فال بي كن دسول نيوم نيوب كو سنك نيو جبل سليجي سليجي مام شيخ إبراهيم فال بي جم كر سرين توبا خادم رسول wa keur serigne cheikh ngonda fall sin jitalu mam salihou fall mom serigne cheikh ngonda fall mom mam salihou mom mam cheikh ibrahima fall Baye Amdi Moustapha Seck jëwriñ la ñu àndal maam Saliou nag ànd ak ay rakkam yëpp euh, maam euh, sëñ Abdou Chakor Fall sëñ mboolem kër gi rek ngir ñëw jëbbal si seen liggéey pour waaye jur wu tedd woowu sëñ Cheikh Ngounda di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wër Baye Amdi Moustapha Seck salaamaaleykum. asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu kilifa yi fi teew bokki taalibe yi bokki jullit yi seen mbokkum taalibe di sinub taalibe Moustapha Seck Baye Fall moo leen di nuyu ci ndigalu sëriñ Cheikh Ngonda Fall ak ciw turam sëñ Cheikh Ngonda moom maam Saliou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina sëriñ Cheikh nag ni ko sëriñ bi waxe léegi bi ni ñëw fii ci kër sëñ Cheikh Jëmb Fall xalifa généralu Baye Fall danoo boole ak rakkam maam Saliou Fall maanaam maam Saliou Fall nag mooy taawub sëñ Cheikh Ngonda Fall di doomam mu ànd ak rakkam sëñ Abdou Sakor Fall mu ànd ak geneen rakkam di ñuy wax sëriñ Fallou Fall ah, sëriñ Cheikh Ngonda nag jëfam akub tàmbaleem ci pos-pos bii ci liggéeyam moom la boole indil ko sëriñ Cheikh Jëmb Fall muy bataaxel boo boole ci bataaxel boo xam ni da ko wax ni ko ginnaaw bu ma yeesalee sama pos-pos di yeesal sama njëbbal di siyaar sëriñ bi di ñaan mu yàgg fi lii ma fi indi muy lu jëm ci luy yéwénal ndigalul maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina lii xeeb naa ko lool waaye nag bëgg naa ñu ñaanal mu ñu dollil nu ko ba nu ci bëgg nu ma ne ko ah maanaam yoonu Baay Faal nag moo baaxoo noonu sëriñ bi nag moom bi mu indee loola naw na ko lool waaye fa mu jóge ñoom xeeb nañu ko lool waaye nag yàlla na ko dolete ni ne na mi ngi mu barkeel te ànd ko góor ak fan sëñ Aliou Thioune nag liggéey bi mu liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall yal na ko Cheikh Ibra nangu ndogu nga xamante ni sa maam Ibrahima Fall dani ndogu yii ma sëñ Bamba toggaloo ku ma ci jox lu ab tànk danaa la ci defal loo xam ne doo yàqu àddina doo yàq àllaaxira ab tànk nag muy dërëm bu ñu xaaj fukki yoon mooy cinquante centime ku ko ci defal loolu sëñ Aliou nag liggéey bii mu def def na ci lépp loolu yal na ko yàlla booleel ca ndogu yooyu yii yu maam Cheikh Ibrahima Fall lii te def te sëñ

sell bi di Touba ngir ñëw si jël si ndogu bi ndogu Baay Faal yi waaye day baax suñ ñëwee si barab bi dikk ak ñun as lëf si cosaanuk ndogu yi dina ko kon li waral mbokki Baay Faal yi di toggi ndogu si weeru koor di ko jëmale kër sëriñ Touba Xaadimu Rasuul loolu ñu fas yéene si ànd ak kon sunu Baay Baara Mbodj sunu bay baram boj xam ngeen ni euh, bokk ci njabootu mam Cheikh Ibrahima Fall gi waye ñu gën kaa miin si radio bu Lamp Fall FM si liggey bu am solo bi nga xamanteni sa saa ci lañi sax di euh, kon euh, wane mam Cheikh Ibrahima Fall assalamu alaykum bay baram alaykum salaam wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah yeen mbokk jori mbokk talibi wa senegal ak wa bitim rew nu ngi leen di nuyu fi ci. kër sëriñ Falilu Fall muy kër sëriñ Modou Aminta Fall ci mbaki bool muy kër ci kër Baye Fall yi nekk ci ndigal yi nga xam ni mu ngi bàyyi ko woon ci Seexul Xaddim ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall mooy bisu kumte bi nii nu koy defee fii nag ci ëtt bii nii la koy defee ci ëtt Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima yëpp nag kër goo fu dem rek. da ngay defé né foofa la ndigal li né lu ko waral fonk ndigal ak japp ndigal ak doylo ndigal waye li sunu borom waxon rek mom lañuy jëfëndiko moy lan tanalul birra ata tunfiqoo mimma tuibuna du ngeen mëna am lu baax fe nangou leen joxe li ngeen gëna bëgg nit nak bopam ak alam la am nit ñangi ni di indi seeni alal ngir fas ko yéenee joxe ci kaw liggéey bi sëriñ Serigne Touba digalan maam Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridine togg ay ndogu yot ko sëriñ Touba mu jox ko njabootuk sëriñ Touba gi ci loolu rek ci lañu ne nu xam nag nu xam le nag ni noo ngi balu ak ñëpp tey jégal ñëpp tey xam le ni yoon yi jëm ci yàlla tool na ni nokk yi yi bii nag bokk na ca te doy na nu sëkkit nag te noo ngi ciy def li nu man li ci dolli ko nag mooy sëriñ baa ngi sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo yore waxukaay gi ak fi ñuy wone li ñu ci jublu nag di ci sant Alioune Thion mi nga xam ne mooy jëwriñ ji te itteewu lu dul li ñuy wax média mu ëppale ko ci lépp lu aju ci lislaam te it ci la ko jëme sax far bokkalewu ko dara kon ñi koy ñaanal tey ñaanal mboolem ñi mu jabooti ci rajo bi di ñaanal yéen ñi àndit ñëw fii yàlla dooli leen kartan barkeel seen liggéey te boole na ko ci daraja Maam Cheikh Ibrahima Fall Baal Muridiina waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi jotaay baa ngi noonu kon mu doonoon sunu baay Bara Mbodj nuñ ko présenté woon si gu waxtaan wi lépp rek si ndogu yi nga xamante ni jël si na ko fii si dëkk bu sell bi Touba di rek ndogu yi jógee kër maam Cheikh Ibrahima jëm kër Serigne Touba Khadim Rasoul li des si ndogu yi incha allah ñu ànd see kon sunu jëwrin di euh, Serigne Mamour Ndaw baay Fall xam naa ni euh, li des si ndogu yi incha allah dinañ si ànd ak yéen jërëjëf sëñ Cheikh Samb kon ñu dëkk sunuy loxo Serigne bi mu ñaan ñaanal ñu ñu wëy si li si liggéey bi. ndax ñaanam doone la waxoon dem du ko waxaat ndax Fatiha bu ñu xëyee ci la ñuy xëy te du doy jullikat yi ci la ñuy xëy julli juróom julli juróom ku subaat loolu lañ waxaat kon waxoon la nga waxoon tamit lu baax ay wàññiwul dara waaye suñu àll ci noo ngi koy ñaanal si daraje Serigne Fall rajo bii fu turu Serigne Fall ak ci àdduna na fa rajo bi ak lu mu atal lépp jeexat na ak ñu koy liggéeyal nag sama bu leen bàyyi nag te wéral leen nag te saxal nañ ci liggéey ndax lii rek moo fi des liggéey sëñ Tuubaa moo fi des adduna bi ku ci dàq doo raw loo daw daw saay xëy na sa kanam kon nag ki nga xam da ko dàq mu ko ko bàyyi ko da dàq ki lay ki lay dàq dana jël muy suñu borom yàlla boo ko dàqee moom da lay gàttandoo ak yërmandeem gàttandoo ak ndimbalam wan la yoon ko gën a mu teg la ca moom te bu nee moom dara doo fa jeex kon nag yàlla dimbaleel awal ci nu ko gën mu awal nu ci rek liggéey Sëriñ Fall bi ñu tàmbali tey jii itam ku ko liggéey Sëriñ Cheikh Jëm Fall nu ñaan sama dimbali ba giñ ko liggéeyal mu sëñ Cheikh Jëmm mu yàgg fi loolu te wér te liggéey bi lim làmboo lépp sunu borom jotal na ci ngërëm yi ak xéewali ak jàmm ji wàcc jàmm ci àdduna jëpp ak xéewali yaatu ak wërsëgu ni ci mboolem julli ak murid yi te moo ko ànd liggéeyal ko seen tubaab lépp rajo borom kër gi di seen falilu kon jërë ngeen jëf kon nag لا إله ลูก Sidi Mokhtar Mbacke xalifa Cheikhul Khadim yow mi nga xamee ni yaa ñëw andi jëf ju rëy ji jëf ju màgg ji comme ni nga ko daan defee at yi weesu yëpp jóge ci euh, Cheikh Ibra waaye jóge ci jëwrinam jóge ci ki nga xamee ni moo ko fi nekkal ci kaw suuf muy sëriñ Cheikh Jëmb ñu ñaan euh, sunu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér ci barke Cheikhul Khadim euh, jamono bi saa bu yegsee euh, dana firndeel lool ndigal la nga xame ni moom la cheikhul xadim sàkk woon joxoon ndigal cheikh euh, euh, cheikh Ibrahima Fall mu mag moom yi nga xamee ni ñoo ngi taasu ci barkeem surtout ci weer wu mag wu tedd wi nga xamee ni bu buñ ko dët male rek dana xamee ni weer yu weeru cheikh Ibra la Euh, taxawaay bu am solo taxawaay bu mat sëkk boo xam ne yàgg euh, euh, bi sëriñ bi toogeeg léegi bi sëriñ bi toogeeg léegi bu ma juumut toll ci yaakaar naa ni ci ñeenti ay at boobaak léegi itam taxawaay bi rafet lool bis bu ñu dem rek bis booba gën a rafet bis boobu itam gën a firndeel taalibe gi waa Pastef itam ñu gën ko ci ràññee loolu nag sëñ bi gis na ko mi ngi ciy sant bu baax a baax di ko ñaanal di ko leeral itam ne gis na liggéey bi te dana ko ko tegal ci loxol Cheikhul Khadim mi nga xamee ni moo tax muy jëf di ko sant itam di ko ñaanal ci taxawaay bi nga xam taxaw na ko ci yoonu murit ci taalibe yi ak ni nga xamee ni noonu la sagale Cheikh Ibra noonu itam la noppale ko ci ci noonu la noppale sëriñ bi itam ndax daanaka eh, ci wàllu jàmbat yi mbaa wàllu lenn ñëwu fi lu dul lépp saa su nekk rek mu ngi feeñal ak cofeelam mi ngi feeñal kóllëre mi ngi feeñal bëgg-bëggam ci digganteem ak Serigne Touba eh, ba loolu eh, ba loolu kon rëy na ci moom lool mi ngi koy sant bu baax baa baax di ko ñaanal. dugg nayloo ak gëm gëm gëm Serigne Touba mm, mm, di di leen bàyyi xel bu baax a baax. بالسلام أجلب قم من يدي أخرج والمطيب هذه بجاه المصطفى محمد كن حائلا بيني وبين مفسدي نجيتك كي أكون من عبادك مصلقا مني ومن أعدائك يا بر كن مصليا على النبي والآل وصحبي وهب لي مطلبي من كون قلبي ناجيا من شك وكل ما يدور لا hola, sant cant xol di fedd di kolëre mu ne daa moon yéen i tànkam ba egsi fi ci yéen ni ngeen koo xamee rek ci mag coono yeeg yooyu yëpp waaye mun mu ne leen xamal ne ngeen xamalal ko kilifa yi ne xolam gën naa sedd xelam gën naa dal baax ndax liggéey bi sëñ bii ñu ko dénk fii ci njaareem gi te mu jaari ci Amal Basir te sëriñ Tuubaa àndoon ko Seex Ibra ña leen ci doon wut di leen ci wut bañ egsi fii mu seq ko yéen te waxul ne soppi ko waaye mu gis ne yokku na loolu lu mu sant yàlla sant ko Serigne Touba sant ko Cheikh Ibra sant ko jëwriñ mi yor liggéey bi ndax nee na xam na ne loolu liy rafetalu liggéeyam di ko ca may ndam di ko ca dimbale mooy taxawaay yii te nee na wóor na ko ne Serigne Touba ngi koy gis Cheikh Ibra ngi koy gis ñi leen dénk liggéey bi it ñu ngi koy gis nit xam na bu baax itam nag Cheikh Mamadou Fadil Fall fa mu ko jëloon ak fa mu ko yóbbu woon ci yitteem ak pasteefam ak taxawaayam bu waaye xam na itam ñi mu dénk liggéeyam fi ngeen ko ko yóbbul ne li ci gën a neex mooy lépp ngeen delloowaat ko ci sëñ Saa Jam lépp ngeen terale ko seen waajur woowee di sëñ Saa Jam taxawoo ko ko ànd ak kooku moom liggéeyam ba yóbbul ko liggéey bi fii dañ mu taa ne loolu lu mu gis xolam la lu leneen ak ñaan rek la ko yàggale ngeen yàgg ko ànd lool suñu borom bàyyi fi sëñ saa jëm moomee ci barke sëñ Tuubaa Seex Ibra waaye bàyyi leen fi yéen itam yokkal leen seen kattan xam na ne fii mu nekk sëñ Sidil Moxtaar la fi nekkal luñ fi indi itam sëñ Tuubaa ko moom sëñ Sidil Moxtaar mooy sëñ Tuubaa moo tax bu duggee ci loxoom it dana ko defal sëñ Sidil Moxtaar ci lépp ci sëñ Tuubaa lépp di sëñ Tuubaa kan nag moom ñaan gi rek la ci wàll yàgg ko andi yàgg ko fee fekk kilifa yi na ci seen kanam kattan yi dolliku jàmm ji dolliku wér gi dolliku lépp yokk ba ni ñu ko bëggee mu kawee ni njort lépp nag barke bi sëñ la da nga jàttali na ko ne wax amin te fas ci lam bëgg